yàgg na 2016 néegam lañ doon fréquenté ñun ñëpp di fa naane ataaya di fa defi lépp loolu xam nga ko ñu gëj a gisee ba yàlla dogal ma gis Dakar Buzz dugal ñu dafa feebar ma jël numéro yi contacté ko seet ko fii Tivaouane ma topp ko la rek fii nag waaw looloo tax tey macha bi nga déggee xibaar bi dal seen kaw mu nekk dëgg yàlla jënd muy jiw waaw loolu dañ cee sant yàlla rek xam ne loolu boroom borom dogal ndax ñun ñii muy yow muy man muy keneen ku mu mënti doon bis dina jot dina dina dina dem waaw waaye daal li may li may li may gën a wax mooy maa ngi sonnaat nit ñi ci kóllëre mhm. nit ñi mhm. artistes yi nañ am nañ am kóllëre mhm. gis nga bis bii dal yaa doo kum ci ku mu mën a doon dina la dal mais artistes yi nañ am kóllëre fii refetoon na artistes yu bëri engagé laa fi gis ak bébé Eva bi ma ñëwee mais rafetoon na fii artistes yu ci mais bëri na ñoo xam ko dee buñ fekkee suba la sarax li ci bëri dinañ fi oto di wala ñuy def yeneen yooyu soxlawuñ ko fii yaadoo bi mu taxaw ñu ko taxaw xam ne leen waa Dakar bi social na kontaan nañ ci ñoom mm. mais gars maa ngi soññu artistes yi nañ gën a am kóllëre adduna bi du dara adduna bi nit am kóllëre jërëjëf moom pare la yor sax gën a sonn mmh. di masaw yaayam mmh. yaayam jàmbaar la daj na ci lu mmh. amatul benn activité bàyyi na léppam ngir yaadoo bàyyi na léppam ngir yaadoo ne ma sama doom ji daal la am naa ànd ak moom rek keroog yàlla def li gën du maire bu am courage nag maire bu am gëm-gëm nga bi yaadoo gaañoo bokk naa si ñu mu njëkk a woo ne yaadoo daal euh, far yàlla def na di gën ma ne ko kon maa ngi jubal ci bi ma ñëwee itam dem naa ba ci jàkka ja xool ko ñaaneel ko tàggatoo moom taal mhm. nan ko ñaanal mais sonna na te dafa noppalu nag mhm. Mhm. ki dem di yaadoo boo ñu mënoon wax ay témoignage si moom mooy kan ndax yéen ñaar jëflante ngeen waa nit ku baax ku bëgg jàmm koo xam ne ku am fula nag koo xam ne li muy feebar feebar am na ay bañ am na loo xam ne parce que boo xoolee sunu vidéo bi ñu fi njëkkoon def fan yee euh, polémique bi bari woon ay détails moom en personne bi nga ci vidéo yi moom moo wax moom moo wax ni ni li Fadel lii mu def man maa ko sant parce que dama ko soxla woon waaw ñu war ma jàppale mhm. di ma xool kon Fadel maa ko sant ne ci ay principe nag ne ma maa ko def daal ma dëkkal sama nopp bi Fadel bul ma bàyyi bul ma seetaan parce que yow laa am mhm. ma dund ma dee yow laa am bul ma bàyyi mhm. wax boobu sokke woon ma woo ko wala ma taal sama moto daal ne xaaral yaa doo daal comme ni sama xel daal bàyyi ma daw dem xoolaat su ma ñëwee ñu kaf fooree ma naan ko tey loo ndékkee tey tànn nga yooyu mu nekkoon ku ku amoon gëm-gëm nag am gëm-gëm jàpp ne day wér moom mais après day toll foo xam li ma la ci wax rek bu dikkee moom li la war a yóbbu kenn mënu ko mënu ko mënu ko faj mais Paco na ni jàppalante ci yàlla tax na ni jàppalante àdduna ku la yàlla sa nawle la te àdduna dara saxul te kóllëre nañ koy sàmm ci bi ngay dund euh, yàlla ànd dafa doy waar su ñaar ñu yàlla boole ak ku mën a doon rek muy man muy ku mën a doon rek muy jëkkër jabar muy papa doom muy yaay doom ku mën a doon rek na nga mm-hmm. sàmm sa digganteek moom mm-hmm. te xam ne ànd yàllaa koy dogal mm-hmm. mais na nga ko rafetal ba ëllëg yu mel nii bu amee rek kenn ku ne dina xam ne yàllaa ñëw ak dogal ak mais ci loo ci war a def lépp balaa meew ma kenn nag ndax yàlla moom moo ne woon yaadoo ci bis bis bi lay dem mais nañu gën a rafetal diggante yi ah, te xam ne ku yàlla booleel daal moom mooy sa trésor waaw na nga ko jàppale ci xalaat ci doole ah, même boo ko joxul financièrement xaalis sax assisté ko parce que dina lu mu def ci moom noo def mbaa yaa ngi tane naka yaram bi dina am lu mu defaat ci moom xam ndax alal mën na la koo jox nga yor ay millions yaa doo jox na ko ay millions teewul dee na mais tey ah, yaakaar naa ne tey doon ko assister doon na am solo trop présence bi mhm. noo def mbaa yaa ngi ci jàmm naka yi tey nu sa yaram def mbaa yaa ngi lekk lu la hôpital bi wax ndax sa état de santé fu mu toll yooyu dafa am lu muy defaat ci malade loo xam ne dana ko dimbali ci lu bari euh, ma koy wax te képp koo xam ne rek nit nga yàlla booy laak nit muy jëkkër ak jabar papa ak doom xarit ak xarit lu mu doon rek ngay sàmm ko leer googu ndax dafa am solo mhm. te massa euh, xëj na fajul góom mais am na lu muy defaat ci mhm. nit tam dañ koy bàyyi xel bu baax macha allah Fadel li ngay def am na solo lool ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel suñu différents plateformes lu ci mel ni Mprod Dakar Buzz ak Bprod tey nag ñu euh, a mag euh, fekk fi nag ay acteurs yi nga xam ne bokk nañ ci wàllu culture lu ci ni engagé ak ñoom seen ñu ñëw fekkee bés bi nga xam ne tey bésu naqar la engagé ñu lay jaale ki nga xam ne mooy Yado ndax wax dëgg fa neex yàlla ginnaaw bi mu feebaree taxawoon nga ko yow sa jigéen Eva ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi mm-hmm. ñu bàyyi la rek nga nuyoo ñu lay jaale bu baax a baax ki nga xam ne moo fi bàyyi ko waaw man tamit maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àddina di nuyu képp ku ñuy seetaan aussi waa Yadoo moom Yadoo ñëpp la kenn ku nekk mën nga ko jaale sa bopp ndax artiste comédien la woon mu yàggoon a bégal askan wi tey yàlla def li gën ci moom mu dem ñu àndandoo ñëpp di ko ñaanal yàlla yërëm ko fa jëm gënal ko fi mu jógee njaboot gi mu fi bàyyi tamit muy famem yàlla taxawu leen yàlla may leen xolu muñ macha allah ginnaaw feebar bi nga xam ne moo ko tëraloon suñu borom yóbbu ko tey ci bésu talaata bi wallaahi gis nañ ne yéen defoon ngeen ci liggéey bu am solo yaag sa sista ngeen taxaw ko maanaam ci feebaram boobu waaye tamit wutal ko koppar mu faju naka leen mbir moomu nag ginnaaw bi ngeen jotee xibaar bi nu mu leen def. waaw loolu moom acte bi sénégalais def man ñoom laay sénégalais euh, laay njëkk laay njëkk laay njëkk euh, jaajëfal di leen gërëm. donte naqar am na waaye dañ koy sante yàlla mm-hmm. ndax nag euh, yàlla bu soxlaa jàmm day ñàkk waaye nag gis nañ seen bébét seen yéene mm-hmm. ñoom sénégalais ñun wax rek la ñu mën mm-hmm. te ba ñu waxee ñoom fekk si nañ ñu ñun amuñ xëy na amuñu doolay poos mais mën nañu wax nit ñi dégguñu tey bi ñu waxee nit ñu dégguñu sénégalais def nañ ci seen mm-hmm. kéemtulaay kàttan vraiment tey bu taxawu bu alal doon tax nit du dee kon yaadoo du dem waaye nag yàlla moo soxla loolu tamit dama ciy jaajafal sénégalais yi acte bu rafet bi ñu ci def yaadoo dem na waaye wax dëgg yàlla am na kàddu yu mu fi bàyyi di wane ni moom kontaan na ci sénégalais yi nga xam ne tey taxaw nañ ko mm. vraiment laataa suñu borom di ko yóbbu jot ngeen déggante ci semaine bi noonu non man euh, yaayam laa mujjee dégganteel mu nekkoon après après après kii bi nu mu tuddati bi mu euh, bi mu jógee hôpital waaw yaayam laa dégganteel mu xamal ñu ne yaadoo mi ngi deux jours trois jours ma ñëwaat euh, bébé Eva ma moom déggante naag euh, yaadoo mm-hmm. ba yaadoo xamal ko ni moom yéene mooy bés bu tane bëgg na toog ci plateau mm-hmm. gërëm gërëm gërëm sénégalais mais na xëy na nii la ko nii la ko yàlla bëgg kan moo di woon yaadoo ki dem yaadoo nit ku simple mm-hmm. nit ku modeste nit koo xam ne rëyu yaadoo mën naa ne tey bi ñuy bi ñuy xamante bi ñu yàlla di boole boobu mën naa ne whatsapp amagul tiktok amatul parce que dafa yàgg dafa yàgg loolu euh, jamonoy clair de lune la woon moom mi ngi nekkoon compagnie clair de lune mooy bu ñoom yaalit mm. ñoom ñoom ñànku mm. ñoom euh, général Kayre Xaadim mm-hmm. ñoom ñun ñu nekkoon dégg jàmm mais boo xoolee théâtre kat yëpp ay mbokk lañ ñun ñooy daje ci festival yi mm-hmm. ñooy daje ci formation yi mm-hmm. ñooy daje ci spectacle yi loolu moo ñu xamale mu doonoon nit koo xam ne fu mu nekk kenn du ñëpp billaay wallaay nit ko amoon comédie bu naturel même bu dul tournage même bu caméra yi tàkkul bu ñu toogee suñu biir def ñuy bëggal te yaadoo daawul xeeb kenn wax dëgg yàlla bu ko yàlla fayee xolam mën naa ne àjjana la yeewoo macha allah euh, gis nañ la ci armée yi euh, nga sëgg ronga lan moo la jooyloo waaw li ma jooloo mooy que euh, yaadoo dem na moment bi nga xam ni ñu ngi koy dugal ci biir pax bi sama xel dem ci sama yaay man tamit aussi wax dëgg yàlla dafa may faral di dal su ma demee ci yenn rob yi sama xel day dem ci sama wéjur bu jigéen ndax dëgg yàlla moom it dee daal moo doon dañ naan gën a gën a bees la moo am mais gën a métti la amul vraiment waaw mu doonoon sama xel dem ci sama yaay ak dem ci moom mi nga xam ne tey bàyyi na famille mu souffrir pendant des mois wala mm. pendant des années mu mm. souffrir ko tey mu xëy dem métti na loolu mu loolu moo loolu moo tuur samay rongo mm-hmm. ndeysaan yéen acteurs culturels yi da ngeen di bëggal sénégalais yi nit day feebar sax ngeen bëggal ko ba mu jóg waaye gis nañu ci ëpp ci yéen bu ngeen feebaree ñi la ñuy seetaan day bëri ci autorité yi ndax loolu tamit jotul ngeen lancé benn appel waaw mais loolu boo xoolee bañ ci dalee lance appel yàgg na man bañ ci dalee lance appel est-ce que est-ce que man judd naa bay dugg ci théâtre bi ma duggee ci théâtre ñu ngi koy wax bi ma nekkee ci théâtre ñu ngi koy wax bi ma yàlla suturaalee may ma as tuut ci tur maa ngi dégg ñu koy wax te man bokk naa ci ñu koy wax chaque jour xëy na kat léegi ñu lenn la ñu mën mooy que ñun artistes suñu biir léegi loolu léegi waaw lii yàqu dara yéen seen bu mag ngeen. seen bu mag ngeen tamit amatul loolu léegi seen bu mag kooku yéexee tuuti. boo dugalee dix personnes ñoo lay seetaan waaye wala monté vidéo yi rek soo ñëpp ñu jëlandoo meer bi incha allah. ah kon ngeen bàyyi nii de seen mag amatul seen village seen mag amatul. Ibrahima jëkkante moo am rek. jëkkante rek waaw mu ngi di sport. waaw wala la nga dugalee vidéo mën na waaw waaw meer bi de kenn mënu rek bu ñu ko am Mm-hmm.